برأني الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعتراض برأني الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعتراض سرق منتخب بصير باكي جمعي ني خمني جامونو موريت ييب جاخلي ngir gisatuñu doomi serigne touba ci kaw suuf moo njëkk takkal wane yoon wi képp ku yaakaar xaadimu rasul waree ànd ak ki jëkk doon xalifa ci sët yi di cheikh Mouhamadou lamin Bara Mbacké Fadilu booba la xeli murit yépp dellu si seen xel gën a dal seen yaakaar gën a dëgër ci Serigne Touba. kone diw doomi Cheikh Cheikh Mouhamadul Bachir la Cheikh Mouhamadul Bachir bokk njaboot Cheikhul Khadim كنا كوكو عالم لا دوندو كوني لاجتي مو بوكتي نيك بو خامني ايتام خام خام اك دين لا نخام تي يوم مي اسكرون باكول غور غني واخ مخو جفافال جاخاتي مجر واجرم صاحنا بنت جاخاتي مك شيخ مولى موسى بشير سيدي ساق góor gi ma xuja faafaal moom yi nag moog sëñ Moodu a Jaxate mi jur sëñam sëtu Jaxate ak waajuru sëñ Saaliw ñoom ñoo bokk benn baay askanu mewndu la bokk ñu xam leen ci jàng ak jàngale ak bay di dunde Daaru Salaam la gane àddina 1900 1933 am na ñuy wax 1934 waaye 1933 mooy li nga xam ne moo nekk ci ay kayitam Darou Salaam Kayal département de Mbacké fa la dale itam njàngum alxuraanam fa ko tàmbalee. Sëñ ci mbindam moom moom Muntaxa xam naa turu ko ndax pare loolu lañ koy tudd. شيء شيء خشدي يوم سرين بي ما ما ما خلاص تروكو تروكو تروكو تروكو تروكو نهلا تروكو جبولا وتطلع يد رسول الله لا ما يتقي ونقي لك ما ما منتقى برد لو قلت خشدي لك أنا فما قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى بابو تشلبوك من سما قشدي شيء معجزات رسول الله هنا أكرمني الله بجاه المنتقى من يوافقني يلقى متقى أبني تيمي تيمي البيت يا خالي ويتو لك تر منتقى بابو من سرين جواب من به الباحي الضفا أظن توجه إلي فاندوى حكمني الحكيم وهو الحكم ومنه تاتيني المنى والحكم سرين منتقى بصير مباكي تنفل ngir ku ñu waajal la ku ñu fàggul ab cir la te jëfi waajuram firnde la ci. Cheikh Mamadou Bachir muy waajuram it daf ko tànnal néeg boo xam ne ñëpp dañ ko daa taamu ñu néegu mu méwndu ñu néeg bu boo xam ne xam-xam ak diine ak bay di dunde ak ngor lool lañ xam soxna si nga xam ne mooy waajuram it doonoon ko amub cir jigéen la waaye cirub góor la yor amoon na tawfeex ci sëriñ bi fekk sëriñ bi mu toog mu yëkkati dërëm jox ko ab dërëmu ngurdu sëñ bi ne ko lii loo ci jublu mu ne ko damay joxe addiya te booba ndawe na lool sëñ bi nangul ko boppam te xam nañ ne sëñ bi dawul kon soxna si boobu la muy ndawe ndawe am na lu mu doon faggu loo xam ne jàpp naa ne faggu téef gi Seex Mahmud Muntaxa mi ci la bokk mu liggéeyal ko itam nag ci kër waajuram liggéey bu wóor boo xam ne dañoo xam ne nopp moom ak boroom waaye ku ne xam na ne liggéey na fa lu ko may doomam toog jataayu Seexul Xadiim ndax pas-pasam ak liggéeyam bu sell ba ñëpp seere nañ ko ñu nekkoon ak moom ci kër googu moom soxna Binta Jaxate jaar na njaareem ci sëñ Mor Mbay Sise ngir mottali njàngum alxuraanam bi mu jàngee alxuraan ba noppiit jàng na xam-xam jaar na ci loxo yi sëñ Mat Dem ci njaareem sëñ ma dem di ku ñu xam ci yoonu murit ci kilifa yu bari yoo xam ne ci yoon wi jaar nañu ci ci loxoom ginnaaw bi mu jógee ci sëñ ma dem itam ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Bachir mi kilifaam mi ci la ñëwee ci sëriñ Habib bari na téere yoo xam ne ci sëriñ Habib la ko nafaraate lu mel ne Xalil Muxtasar Cheikh Xalil رسالة الثمر الداني daani ak xadimal maamut foofu jaar na ci sëñ bi bu nafaraat téere yooyu yurdi billadi ka xidmati bada nafaytu zannuhu bi anni alxadim bi an misli pas-pas boobu dogu gogu ak talibi gi mu wane won donu lu bees ci moom lu mu xam la yàgg ko dund ndax findeli modi fi mu jaar bi mu gane aduna nekk ku sonn lool ci sàkku xam-xam Mauritanie nag jàgg na fa sonn na fa lool ci ci jàng coono coono boobu mu sonn ci sàkku xam-xam ba daj ci li mu ci daj moo tax ñaare bu masaana gis kuy sàkku ji xam-xam faaw mu yab na maanaam mu dénk moo tax am na doomam sëriñ musa sëñ musa am sëñ Mountakha bi muy jàngi Maroc nee na sëñ ko ne ah jàng de moom faw mu ànd ak coono ngir nga mën a jot njariñ li meññatum xam-xam faaw nga sonn daal ko ne man bi ma nekkee Mauritanie maag sëriñ Moustapha Abdourahman Lo booba xiif daanu jàpp ba buñ doxee ba gis dàkkande dañuy jàpp ne ci pom lañ yem nga xam ne gëmi duñ ko gëmi ngir ngir xiif bu metti woon ba noppi daana ko xamal ne ko bu bu bu bu bu ay yéreem tilimee day wut barab bu mu toog fóot ko toog xaar ko ba mu mu boobu salaat ko kon mel ne ku sonn la ci sàkku xam-xam lool dex bu tedd googu ci Mauritanie bokk na ci ñi nga xam ne roote na fa lu bare bare bare bare bare bare muy giir gi nga xam ne mooy ay idawal xaaj mooy xeet bu mag fa nekkoon fa la ko bàyyam yóbbuwoon sëñ Basiru fa lu bare bare géeju na fa tax na ba bu ngeen ko seetloo dundalaat bëgg naa dundalaat lu bare bare bari ci sëñ yoo ci murita muritani murid yi ak muritanien yi bëgg na ci dundal lu bari bu ngeen di xool ci image yi di ngeen seetlu néew na weer wu jàll ci invité wul borom xam-xam bu nekk murtani andi ko fii teral ko wala yu mel noonu te loolu fi mu ko teg rek mooy gis na sëñ Touba am na fu mu leen tegoon fu kawe gis na sëriñ Touba it jeexitam foofu dëgër na te moom nag am na wàll noonu lool saa la wax ne ne am na wàll ci dundalaat loolu ndax comme sorta seeni daara la fa la fa la jàngee génne fa comme dañ fa génne ñun day mel ne kon sëñ bi liggéeyaloo na ko ci liggéeyaloo na ko ci loolu kullu zalilin fawqahu kullu zalil ya man yara ghayra al ilahi ku ne xam na wajuróom wu góor ci xam-xam nangu gu mu ko nangul wérub njàngam firndeel na ni nonal xam-xami sëriñ Mouhamadou Bassirou Mbacké rogalaat na ci jëmmi sëriñ Muntaxa sëñ Bassirou mi nga xam ne mooy waajuram nag te doonoon nitug diine doon nitug xam-xam moom Cheikh Mouhamadou Bachir bi sëñ Muntaxa sàkkoo xam-xam ba noppi bàyyiwu ko noonu da koo nattu ci xam-xam ba defe naa ne am nay jamono euh, sëriñ Moussa doomam nettali na ma ko nee na am na bis sëñ Bachir woolu ko cim néeg di di di gëstonteeg moom di ko nattu ci lim jàng ndax xam na ko dëgg dëgg xam wala déet ndax sëñ Basiru dafa doonoon boroom xam-xam boo xam ne adina bepp xamone nañu fi mu tollu won ci xam-xam xam gogu mu xamone xam-xam nak bëgg xam-xam motax bi seigne muntaha jangé ba ñew mu tëjoog mom ci néeg xam ñaar ñi kenn la ci euh, mu budul euh, ku ñuy wax Baye Assane Ndiaye Daaru Minam salum euh, ku ñuy wax mam Amar Babu ci kaolax kenn la ci kenn la ci ñaar ñi bi sëñ Basiru tëjoog seigne muntaha ba genn da ko ah, sa waa ji da laa doon gëstoonteel waaye mel na ne lim jàng xam na nga xam ne kon moom dañuy wax ne ki ko examiner ba xam ne am na xam-xam mooy Cheikh Mouhamadul Bachir mi waajur te sëñ Bachir bokk na ci ñi raw ci réew mi ci ñoo xam ne mën nañ leen a teg baaraam nangu seen xam-xam mu doon koo xam ne nag borom bi subhanahu wa taala dafa dogal muy borom xam-xam ku nekk xam na ne xam-xam mooy li ëpp solo ci ab jullit li ëpp solo ci jaam li ëpp solo ci jaamu yàlla moom nag yàlla defal ko ci ay tawféex mu doon koo xam ne daf koo bëgg bëgg gi dafa yàgg ci moom lool waaye loolu du kéemaan ndax ku xam fi mu soqi ko kon danga xam ne kooku xam-xam day ab cëram al ahad wa kawnu xayri al man jaar hadaani allahu hidaayat allati sàkku xam-xam ci ay coono la ko jaarale dem ba àgg ci boole mbooleem lees di xam ci diine ci àdduna ci sëriñ bi ci doomi aadama yi mu xam ko xamin bu wér gannaaw diine ji gannaaw diine jëng may gëstu sama diggante ak diine ji may gëstu nag sama diggante ak diine ji lépp itam bëgg diine ji wér lépp it gi ngir bëgg diine ji wér rek ba ma ca amee ab diir ba ma ca amee ab diir ma am ca tawfeex ma am ca tawfeex la ma ci jëlee. la ma ca jëlee. mooy xam lay dëgg dëgg diine ju xam lay dëgg dëgg diine ju wér. ba ma ca agsee foofu. ba ma ca agsee foofu. ma daal di nag. ma daal di sóobu nag. sóobu gi nag. ci biir sóobu gi nag. ma daal ci sëriñ bi. ci laa daal di jëmee ci sëriñ bi di jàng nag sëñ bi di ko jàng di ko jàng ba am ci taw bi lu ko yàlla xamal nit la ci gën a xam dafa xam nit waaye dafa bari kersa ba boo toogeek moom te amook seetlu dangay jàpp ne xam-xamam jëmul ci xam àddina wala xam nit fekk lépp lu ñuy xam ci nit xam na ko lépp lu ñuy xam ci àddina xam na ko koo xam ne ku am sago la mu amit qualité yu jafe mooy nit mënu koo yàqal ci nit mayut nit sax nga toog dafa tudd nit te bu la rusoon ba di ko waxit du la ca ta te du am jeexit ci moom mu ubbi ko it ci jullit yëpp waaye rawatina murid yi waaye rawatina ñu mbokkal Seexul Xadim ganitu an sayfin wa an armahi waajani sawiyu bi tabsiri sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke laata muy doon xalifab sëriñ Touba rafetaloon na digganteem ak magam sëriñ Moustapha Basiru ci mbooleem lu mu daal liggéey ci yoonu murit laata yan bi agsi ci loxoom ak nos bi it ku nangoo woon a toppe la ku nangu woon a toppe la léeg-léeg sax toppe googee muy toppe am ñu ko ciy xool ay bët ci lii nu ko nit mën a nu ko nit mane waaye moom day woyof fi moom tooy ndax xam li ko war mu nekk ca bi mu demee ba gisatu Cheikh Mamadou Bachir dafa topp Cheikh Mamadou Moustapha mi magam yam ci loxoom di ko liggéeyal di dégluy ndigalam waaye lam koy yilif yilif ak ni kër sëñ mel teewut dafa jaxasoog doomi Sëriñ Tuubaa yëpp ku ne mu jox la doon ca moom ba noppi féete fi féete ku ne am nga ci moom ab cër ba defe ne sëñ Muntaxa sam sëñ Muntaxa la ba noppi nag mu nekk fi mu ne di déglu ndigali sëñ Moustapha te du ko gis ci lu muy tere naajaani alkarimu am na itam lu ràññeeku ci sëriñ Muntaxa Mbàkke lu jiitu muy doon xalifa muy topp gi mu topp képp ku fi nekkoon xalifa muy lu muy rafetal ci anam yépp nangu kilifteef moo ko teg fii mu nekk nii tey jii ndax ku nanguwul ñu yilif la doo yilifa mukk ku nangu ñëpp yilif la di nga yilif ñëpp moom nag ba mu fi nekkee doon sëriñ Muntaxa di di di sëñ Muntaxa rek sëñ Moustapha Bassirou ne fi daan nangu woon kilifteef bi nga xamee ne sëñ mun sëñ Moustapha jógee na fi itam ku fi nekk mu doon sëriñ Bassirou ku fi noon ku fi nekk doon sëñ Touba doon kilifaam daan nangu kilifteef waaw bi fi sëñ Moustapha jógee nag kon mu war a dem jébbalu ji ci sëriñ Saliou bi muy ñëw ci sëñ Saliou keroog addiye yi mu indaale sëñ Moussa Nawel muy jëwriñam moo ko moo ko téye mu ne sëñ Saliou maa ngi lay sant bu baax ci may gi nga ma may ci sa bopp manoon laa jege ba di la jëfal maa ngi sant nag sëñ mustafaa bu baax ci doon gi mu doon sama kilifa ba noppi te xañuma la ba ma mën a egsi ci yow diggante bu doy waar. noppee gis doomi sëñ Tuubaa dafa fab sëñ Baara def ko doomi sëñ Tuubaa lam daa defal sëñ Saliou mu du ko def dox diggante sët yëpp ak sëñ Baara nga xam ne ku ne amoon nga yéene jàppale sëñ Baara waaye sëñ Muntaxa ab soññi la ci yow loo naroon danga ko yokk loo narutoon nga def ko ngir fam teg sëñ Muntaxa sëñ Baara. xamoo noo koy def ñëpp ànd ak moom ca jàpp ga ñëpp ànd ak ñoon ci liggéeyal sëñ baara ba noppee gi sëñ baara ba mu taxaw ko sëñ baara ba jullee ko it fa saasa la jox boppam Cheikh Sidi Mokhtar ànd ak njabootu Cheikh Bassirou Diop sama Bassirou Diop loolee itam jógu ca di jàppale Cheikh Sidi Mokhtar ci lépp doon jëwriñam Cheikh Sidi Mokhtar bëggal ko boppam doy lool ko boppam dénk ko yoon wi mu doon jëwriñam diggam ak taalibe yi doon jëwriñam digganteem ak mbokk yi juróom-ñaari at yi fi Cheikh Sidi Moukhtar nekk yépp lépp loo xam ne jëflante na ko moom mën nañoo wax ne ci suñu kanam ndax bari na lool lu ñu dem ci ab ëttam mu ko sëñ bi nee na nangam ba bokk na ci mujjug sëriñ ci yu baree bari yoo xam ne du waxu rajo yu ñu jaar yoo nga xam ne ay wax la yu dox suñu diggante moom ak ak ak sëriñ bi ba ginnaaw sax bu sëriñ bi demee. bu fekkee mas na am lu ko naqari dëgg dëgg dëgg dëgg mooy keroog ba mu ko ñàkkee. ndax séentu wutoon lii bëgg ko woon wutu waaye nag dafa toppe bañ xëy topp ko ñëpp yéene ko li yor ndax da ko yéene woon ñu ko yor bi muxjilil ulumi wal amwali lii xaada yowma al arbaa il akramu maa doonu wal karamu wa takarrumu waajaani yéene sëriñ Muntaxa ci liggéeyal sëriñ Tuubaa feeñal na ci bëgg baax bëgg xam-xam te mu jaral ko jël alalam def ko ci ay téere ci lim bu takku ñu fagoo ko bitim réew sëriñ Muntaxa toog ci jataay bi moom it daal di tàmbali ay liggéey lu demee ni jumaay ji nga xam ni téere sëñ Basir yooyu fi desoon fi lañ ko defan wut benn màkkaan moo xam ni moom lañ ko jagleeloon féetale fa téere yooyu bi loolu amee mu songu ba liggéeyu jumaa ji ba mu egg ligéyu barabu seigne basirou bi ci la daldi nak sos li nga xam mom moy ligéyu ligéyu bibliothèque bi bi ko défé mu ligé ko ci anam gi ngeen gis moy liggéey bu am solo di espace bu yaatu bo xamni lo rek la ko mu daldi jël téré yi nga xam mo donon téré ci cosaan bibliothèque seigne sëñ daldi koy jaglél ak ak ak euh moy lu am solo euh, niki nonu yit bibliothèque bi it mu daal di ci dugalaat beneen liggéey mooy def fi benn majlis mooy fu ñuy jànge foo xam ni it xale boo xam ne bëgg ngaa jàng sàkku xam-xam ci moo xam diine la wala xam-xamu làkku arab moom it indi na fi mbokk mu jox sëñ Moxtaar Fay muy taxawee loolu loolu lépp ngir yaatal xam-xam waaye ngir wane ni xam-xam moom moo moo ñuy dimbali ci àdduna moo ñuy dimbali dimbali fa nu jëm. tey maktaba bi la mu làmboo ci ay téere toll na ci juróomi junni téere. daanaka juróomi junni ak tuuti eh, làmboo na ko ci ay téere te nag néew na it nga fekk fi téere boo xam ne dafay dafay takraar dafay répété wu imma mu répété wu benn yoon waaye la fa ëpp ci ay téere tanawoo gi mooy façon yi téere yi bari moo gënoon ñor ñañu sant sant liggéey bi que eh, kammiya bi bari mooy quantité bi bari te fekk lu ci bari dafay répété wu mbooleem luy xam-xamul islaam boo demee ci fiq la fi nekk néew na téere ci madhabu Malik surtout téere yu ummahaat yi téere yi nga xam ne mooy téere yu cosaan yi néew na téere boo fi dul fekk néew na téere ci madhabu Malik boo xam ne doo ko fekk ci maktaba bi boo demee ci wàllu xadis ndax xam-xami lislaam euh, alquran la muy tafsir ak la ca aju xadis ak la ca aju euh, fiq ak la ca aju bu ci nekk ci fànn yi mënees na ko euh, tasaarewaat Euh, séddale ko ba mu doon ay fànn yu baree bari kon loolu yëpp day wane yitte ji nga xam ne sëñ bi da koo jox xam-xam أنبت إلى الباقي الذي راض للملا كمدح الذي مدحي له الكل جملا نبي نصيح لي سعابا يسهل وما رمت بالمختار ربي يسهل جك ابني قلوان رك من كلام دف قرأنا جيبوا منك مبار ولا يشام بي Moussa Bissir ko mu def ko borom baax a baax a baax xam ne euh, mbaar la waaye du mu ñax mi nga xam mbaa xeetu mbaar la mbaar bu rafet la moo xam ne mii dafa liggéey ci xeetu euh, jumtuwaay jamono yii mu rafet lool te baax lool te yaatu lool wax dëgg yàlla dañ ko tuddee mbaar waaye du mbaar xeetu néeg la daal néeg bu jamono lool daal loolu itam dem ba tubaarkala tey eh, mu mel tey nii mu mel ak xam ne liggéey ni mu mel nii mu mel nga xam ni euh, ku ne ku ne gis na ko tey tab-tab gi ci am euh, lépp ci taxawaayu sëriñ bi ak mu ndigalal wax ju baax euh, day yokk rek amu fu mu yem moo tax tey xëy na ñu fekkoon démb bi ñuy tàmbali fulk bi ak ñu ko fekk tey bu ñu ko waxee dina yéeme lool ndax tabaarkalla waaye loolu mooy doxinu sëriñ bi loolu mooy liggéeyu sëriñ bi moom da ngay day yokk di dem amu fu mu yem boobaak léegi mi ngi dox dox bu sore sore sore rawatina bi nga xamee ne ci diggante bii Cheikh Mountakha nekk fii léegi nga xam ne bokk yëpp kooku beneen point la mooy point daje gi ma doon wax léegi ku nekk njaareem ci weeri koor bi nekk ak Cheikh Mountakha da gis ne mbooleem bokk yi tàmbali woon nañ ko waxtu jamono yi sëñ sëñ Moustapha Bachir waaye ñun ñëpp xam nañ ne yokku na daanaka amul genn kilifa ci yoon wi xam ne ni koor gi ñëwee doo fekk ci weer wi benn bis euh, kon moom itam lañ naan mujjee pus bi mu moom du ko daal moom itam moo mën ci dundal dëkk bi ak ak ak ak yeesal dëkk ba ak wéttali dëkk ba ah, loolu euh, moom itam kem kàttanam amul amul fu mu ci yem moom itam ah, yàlla dogal na ren ji sax bi nga xamee ni ti koor gi euh, Tuubaa la wooree teewal am rek dara manqué wu ci lépp dafa yokk sax. ah bu ñu demee mu jëlaat fukki fan ñëwaat njaareem ngir yeesal loola ak yeesal dëkk bi ak gën a saafanteeg waa dëkk bi ak xam ni fu mu ne itam xelam ngi njaareem loolu rek mooy moom noonu la si mën taxaay def noonu rek la loolu mooy wéy bu faaw ah, ba tey mooy loolu ndax baraxaan itam xam ngeen ne soxna Sall dilaa naa soxna am jaara <coughs> mi waajur sëriñ bi di lépp moom moo fa nekk moom itam suñu Mouhamadou Bachir moo tàmbali woon di di fa di ko wootil foofa ñu ko fay ziare xam ni ko fa nekk itam ah mooy lépp eh, soxna jaar soxna soxna radiyallahu anha ah, suñu Basiru di ko dundal foofa di ko dundal ba yàlla dogal ba mu fi jógee itam Cheikh Moustapha eh, ibnu Cheikh Moustapha Basiru di xalifaam suñu Moustapha itam ci njàmbaaram ci pëstéefam ci ci ci ci ci ci ci ci bëgg ci amuk taalibeem ci fonk ndigal ndigal eh, ak ndigal gënal ko bakkanam gënal ko léppam moo tax bi nga xamee itam loolu naalu suñu Bichir la bëggu suñu la lam ci bëggoon ci Porokhane na am na ci lu amagul moom itam moo taxaw temm nag ci dëkk ba lépp lu dëkk di am nu dëkk di mel luy taarub dëkk rek suñu Moustapha itam taxaw ba loolu lépp am Porokhane eh, niñ ko bëggee woon si niñ ko bëggee woon ba tey mu def sax mbool yoon yi murit ku ku ku ne ci yoon yi rek am nga fa appartement boo xam ne boo ñëwee wala sa njaboot ñëw nekk fa loolu liggéey boo xam ne benn liggéey mënu ko gën a sell gën a gën a baax mooy daanaka taxawaayu si Moustapha ci Njaay yi mooy taxawaayu si Moustapha ci Porokhane awala abadan mukarrama diftul karima taaba lil xira wa bi manazil bi mu toogee ci xilaafa gi rek la joxoñ fa mu jëm ak li mu fas yéenee liggéeyal sëriñ bi ci yoonu murit liggéey bi mu njëkk njëkk a sumb te muy cër boo xam ne dafa mel ne sëñ Touba li mu soxla woon ci dëkk bi bu dee ñetti cëre cër bi ci des mooy daaray université jii nga xamante ne sëriñ bi ñaanal na ko boroomam kon mu mel ni yittee sëriñ Muntaxa mooy loolu sëriñ bi ñaanoon boroomam yàlla kàttanal ko ba mu jëfal ci sëriñ Touba jëf joo xamante ne dana ko wóor na ko ne dana ko wóor ne lam ñaanoon boroomam boroomam nangul na ko ko may na ko mu wax ne moom yitteem aku naalam nag sas bi mu bëgg liggéey la sëriñ bi mooy loolu ndax ku fi toog toogaay bi rek am nga loo xam ne dañuy wax ne loola moom mooy doon sa sa sa sa sa sa liggéey boo xam ne moom ñu bëgg defal sëriñ bi waaye moom nag mu wax ne nag fii la ko bëgg a tàmbalee mooy defal ko jànguwaay boo xam ne bu mag lay doon boo xam ne ni mu ko waxale boppam dafay tàmbalee ci ki dal baasin ba ci njoboxtan njobaxtal la nag mooy fa gën a sori cim jàng man nañu wax ne jàng amul fu mu yem waaye fa gën a sori loola moo waral yàlla defal ñu taw fii it nag mu di ñu ko mu mu mu mu mu jox ñu ndigalul ñu féete ko ci wàll waajtaay loolu nag ñu def ci liggéey boo xam ne positif lañ ko defee boo xam ne dañoo gëm ne rek Serigne Touba ñuy liggéeyloo moo nu tànnal lim ñuy liggéeyloo te loolu yombul Serigne bi wax ne nii laa bëgg defal ma ko nii loolu yombul. kulli lil karim wal jamil walil wadud rabbi anu la amil jikkoy sëriñ Muntaxa naam ñi ko jege seede nañu ko waaye ay mbokkam yi mu bokkal sëriñ Touba seede nañu ko itam mu am ñaari tànk yu muy doxe yoo xam ne ku amul xam-xam mënoo ko def mooy di doxe ci chariatul mutahara ak xaqiqatul munawara te benn du ci manqué bu ci ne lam ca war a def daf cee daf koy def ba mat sëkk loolu mooy diine ji daf koy jox àqam ba mat sëkk ba dara du ca des mën naa laa wax ne ba fi mu ne nii nii ñuy toll li muy xat xat xat li muy ñàkk ñàkk jot daayira yi di ko xëy di rang du tee balaa xëy li mu war a def lépp dana ko def ba julli yor yor doodu génn dana def dogub alxuraanam def ay awraatam awraat yi moom waxtu wu jël sëlmalee fajar fa muy jullee du fa jóg te jant fenkul noonu muy sukkee boof mel na ku toog ci kanam sëñ Tuubaa di teewlu boroomam di teewlu sëriñ bi du fa jóg ba jant fenku waaye bu fa jógee ba dugg ci biir li muy njëkk def mooy jàng doog bu alxuraanam teg ca dogi xasida yu baree baree bare dafi lawraatam julli yoor yaram door a dem ci liggéeyal sëñ Tuubaa bi ci des ne loolu yi liggéeyal sëñ bi la ko jàppe waaye beneen bi ci des nag mooy nii ñi mu door caa dem ku ko dégg ñu wax la ci moom dana la dana la neex danga ko bëgg a gis waaye boo ko gisee it doo bëgg a dem ndax bu fekkee euh, nit ku defar jëmmam ba ku ko xool bëgg ko yàlla dimbale na ko ci waaye it xool gi nga koy xool mu di la neex ba nga di ko bëgg boo jaxasoo ko moom lay raw musuma dégg ku ne sëriñ Muntaxa sama xarit la woon wala sama wëlëre la woon ñëm gën a yàggal ci ab jaxasoo ak ñi ñi ci diggante bi ak ñi mujj xam kenn ku ci nekk dangay defe ne li la sëriñ bi ëmbal ci ak cofeel ak nawloo ak uk defoo da ngay foog ne yow dong la ko ëmbal te fekk moo keneen bu waxee da ngay jàpp moom rek la ko sëriñ bi ëmbal. nag bi mu egsee li mu njëkk a def mooy bokk yëpp mu delloo leen li ñu moom li ñu am ci moom luñ fi indi luñ fi indi da koy fab séddaliwaat ko bokk yi xam ne moom ñoom ñoo ko bokk jëmmam itam mu bàyyee ko bokk yi dañoo waroon di seen alal di ko yëpp. dañoo waroon di ñëw di ko siyaare si moom moo wëlbatiku di fab li mu am di leen ko séddale moo wëlbatiku moom moom di jóg di leen fekki kon loolu bokk yëg nañ ko xam nañ ko jàpp nañ ko kër sëñ ne dem na fa saafonte ka fa nekkal kër googa jokk bokk ga te bu toogoo nit ñëpp di ko fekki bokk na ci itam dimbali nga xam ne sax daf koy dimbale ñiy jàng ak jàngale defe bimu ne toogee rek ci jotaayu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu bii nga xam ne yàggagul ñu ñaan mu yàgg lool nag te ànd ak jàmm gis nañ ne bokk na ci jëf yi mu jëf muy yëkkati lim bu am solo jox ko ñi nga xam ne ñooy tuut tànk yi wax nañ lañ leen ci jàppale di ci saytu seen wer gi yaram gis nañ itam mboolem jàngukaay yi fenn fu ci ne loxo ma nga fay dem di jàppale ki nga xam ne mooy sëñ daara ba ngir mu mën a toog ca daara ja ba saytu ko nga xam ne noonu la noonu la noonu la ware nit ku baax la nit ku baax la nag ñu ko xasee ba wax leneen loo tudd ci ay melokaan ak i jikko day dugg ci biir ku baax la rek waaye mënees na see jàpp daal ne ku social la social nag la ci jiitu mooy ku ñëw mooy ku jaaxle am xelam daj la te bu ñëwee ci yow yaakaaram du tas ndax ku la ku xelam daj ba mu yaakaar la bu ñëwee dana la gis te bu la gisee dana waxtaan dana wax li mu bëgg a wax te bu waxee nga tontu ko loolu yàlla dimbale na ko ci jëmm la jojit ku mën a dimbale la loolu tam day dugg ci social rafetal ndoonal Serigne Bassirou ci gannaaw magam di sëriñ Moustapha Bassirou ba ni mu ko wuutoo rafetal digganteem ak mbooleem xalifay sëriñ Touba yi bëgg taalibe yépp jariñ ci liggéeyal sëriñ Touba fës yéene ànd ak ñoom yëkkati liggéey bi ba ca kaw loolu bokk na ci dogu ak yéene kii fi toogal Cheikhul Khadim di juróom ñetteelu xalifaam yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér te ay naalam fës lool ba mu làq yeneen ni ngërëm ci sëriñ Touba ci toolub Seydina Muhammad bii nga xam ne moom dong moo ko ñor ndax xam ngu mu xam ne bay ci toolub yàlla bii dong moo tax ñu wàcc ko ci kaw suuf